ye yeah, asalaamaaleykum wa rahmatullah taala barkaatu ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nek sa tour ak sa sante di len ziar di len magal di len damo di len titro di len bëggee bi wër wër wër wër wër kontaan ci yeen cher sénégalais man la sen mbokku compatriote sénégalais may waxtaan ak yeen ke lu ma len di ñëk wax rek mom moy ñu gëna focus ñu gëna am pastef bëgg suñu réew ndax nit bu nekk rek sa réew mooy maanaam sa nattu nit bu nekk rek sa réew mooy sa dund nit bu nekk rek sa réew maanaam moom mooy sa am-am mooy sa am-am àdduna ak àllaaxira parce que yàlla moom mooy tànn doomu aadama fu nekk mu judduloole fa fu maanaam yàlla lay neex mu xool la judduloole la fenn léegi nag si fum la judduloo rek boko xolé tout autour de toi warna warna la meuna a nga xam yow lan moy sa waref des fois nit dina juddoo ci famille tamit famille bo xamni vraiment pauvreté la fa fek koku tay amna ben Pastef ak ben jom bu mu wara multiplier par 100 pour meuna a génne famille am ci coono yoy ci ndóol googu nonu ci yone gu lew nak te barkel ñun yalla def ñu juddo ci ben réew muy Sénégal mu newoon réew bu waroon mëna a warun mu waroon mu waroon mën mu mëra mu non mënoon jekk mu mujjé depp doon réew mo xamni ah intérêt personnel la ku nekk di dox ñu nak intérêt personnel mais intérêt personnel bu ñu bañ moy intérêt personnel bo xamni yow dang koy wër diko wut ci kaw ngay ray ñeneen ñi wala ngay toroxal ñeneen ñi pour say intérêt bobu intérêt la bañ wa amna ben Euh, bindkatu nasaraan bu waxoon ne euh, bu fekkee ni mënuñu développé wu maanaam collectivement na ku nekk def fexe développé wu euh, individuellement parce que ñëpp bu fekkee ku nekk da ngaa jéem a développé wu individuellement bu yàggee day collectif benn bindkat dafa waxoon loolu mu ne mu ne buñ demee ba mënatuñ développé collectivement maanaam booloo pour développé wu ku nekk fexe fa nga nekk nga développé wu ba nga xam ne bu ñu leen boolee day doon développement parce que bu dee kër gu nekk euh, développé wu na Sénégal day développé wu bu fekkee ni waa koñ bi mënuñu booloo pour développé wu mais ku nekk fexeel développé wu te doo yàqal keneen ki te doo développé wu ci kaw keneen ki mais malheureusement ñun Sénégal noonu la ñuy dundee en fait ku ci nekk yaa ngi xool noo toroxalee keneen ki noo wàccee keneen ki noo suufee keneen ki pour mun a jóg en fait noonu la ñuy dundee maanaam ku ci nekk da ngay gal gal keneen ki pour mun a yow nekk ku ci nekk da ngay jéem top ci kaw kenen ki pour taxaw nak euh lu koy waral nak c'est déjà bokk na ci suñu ci suñu juddu ci suñu juddu ci suñu atmosphère ci suñu environnement euh, ñun ñep 80 on est issu des familles polygames euh Sénégal ñëpp xam nañ ni jigéen ñi bugguñu polygame yi quoi jigéen ñi bugguñu polygame yi jigéen boo ci tak bëggul am wujju bu wujju ñëwé rek xex ñëw na parce que wujjante wujjante sax déjà moy xexanté de terme bobu lañ ko tuddee ñoom boo ni ñi dañuy moy ñi dañuy ñi dañuy affronté confrontation moy moy confrontation donc déjà terme bi rek fekk ñu ne ni ñi dañuy wujje donc ñun dañuy bayé ko ci famille yo xamné suñu yaay dañuy ñu gis leen ñuy ñu gis leen ñuy affronté wu gis leen ñuy confronté wu gis leen ñuy ñu gis leen ñu gis leen donc ñu maggé ci loolu ñun aussi ñu formé ñu ñu formaté ñu noonu aussi di ñu xam loo ni kii sa doomu baay la kii sa doomu ndey la kii waru la gën kii gënu la ndey kii gënu la baay kii gënu la tekki donc ngay déjà ñi ngi ñi ngi configuration d'origine bi ñi ngi def ci yow benn concurrence bu déloyale benn xeex benn werante benn histoire benn ay doo yéene keneen ki parce que sa yaay gëmloo ne la ni kii waru la gën ci ndey ka gën ci baay donc saa yoo gisee ni yàlla nga koy jéem a may bunt bu mu jàllee rek di nga ko gàllankoor wala di nga ko yóbbu ci sëriñ wala di nga ko yàqal wala di ko fenal wala di am loo def daal am loo def ba gàllankoor ko ko fekk xëy na bu ci génnoon war naa ni mun a waroon na leen cee mun a génnee mais tout ça formation la boo xam ne si suñu biir kër yi lañ koy tàmbalee bokk na ci tam ci formation yoo xam ni en fait ñun ci suñu bopp suñu parents yi duñu formé ci bëgg suñu réew kenn du ñu formé ci bëgg suñu réew suñu biir kër yi duñu ko formé suñu école duñu ko formé mbedd mi duñu ko formé amuñu fu ñuy formé bëgg suñu réew donc bëgg suñu réew benn flambeau bu yàlla di def ci yenn doomu aadama yi ci Sénégal te ñooñu seen bopp duñ ko jàngee ci école duñ ko jàngee fenn yàlla moo koy def ci ñoom ñu bëgg seen réew léegi nag ñooñu dañuy affronté ñeneen ñi xam ne comme ñoom lañ mais ñu bëgg seen réew jarul leen dara du seet du dara nag du ñoom ñoo ko def di seen nattu la ñoom parce que yàlla moo def ni quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais bëgguñu seen réew jànguñu ko nekkul ci ñoom xamuñu ko donc kenn mënu leen ko toppee du seen faute parce que formé wuñ leen ko jàngaluñ leen ko nii seen kër yi nii ci mbedd yi nii ci école yi donc ñooñu pour ñu bëgg seen réew c'est tout un problème parce que amuñu formation boobu noonu bëgg seen réew patriotisme ci lépp parce que nee naa leen même drapeau Sénégal gars yi safoo ko xamuñu représentativité bu mu am même tay hymne national amul ku muy jooyloo waxoon naa ko fi waxat ko fi hymne national du joylo sénégalais sénégalais day déglu hymne national di ci fo day déglu hymne national daf koy jeu et pourtant dañ ne hymne national donc hymne national déjà euh, d'origine dañ ko raté parce que mënuñu jël hymne national def defuñu ko ci langue nationale L'hymne national day une langue nationale L'hymne national mënul une langue de l'Occident ou la langue de l'oppressé de l'oppresseur ça n'existe pas français, une hymne national c'est en français Angleterre c'est hymne nationale. c'est en anglais Amérique une hymne national c'est en américain anglais Corée du Sud c'est hymne national c'est coréen boo Japon c'est hymne national c'est japonais boo demee etc. Euh, etc. donc une hymne national ba pare national ñu internationaliser ko donc foofu rek la raté lolou motax Sénégal dañuy dañuy wax hymne national kenn du joy ken du len xam nga ñu jël li nga xamni ni sénégalais bu fa demoon da doon joy mais sénégalais bi ñu jël ko banaliser ko ba sénégalais bu fa démé sax du ko saf dara wala fo la fay gis mu melni ni Gorée c'est très représentatif ci ñun mais sénégalais du dugg Gorée joy sénégalais du dugg Gorée yaramam di daw sénégalais du dugg Gorée am envie revanche ni toow my god samay maam fii lañ leen jaarale woon non mais américain boo ko indee mu ñëw visiter Gorée day jooy américain français bu nu bu ñuul wala métis nga indi ko Gorée muy jooy nga indi fa sénégalais muy foo muy piscine lay gis moom moom plage lay gis indi ay xale ñu def seen pique-nique def seen soirée ñu def Gorée ñoom foo lañ ko def et pourtant américain bi bu jógee fee ñëw dugg Gorée di jooy gis ngeen fi ay américain yu dul jeex ñu dugg Gorée di jooy du tuur rongoñ ndeysaan te pourtant ñun ñu fa dëkk sax bu Gorée dañ fay dugg amuñu benn duñu am benn sensibilité ci ci dëkk bu mel noonu Gorée te euh, tey dangay xool euh, juif yi am na foo xam ne buñ fa toogee dañuy jooy tey li nga xam ne Hitler def na ko juif yi juif yi duñ ko ko baal ba suñ jot jonn yàlla tey juif bu dugg tey Allemagne day jooy am na fu muy dem day jooy di jooy ndeysaan affaire bi di ko metti

pour une résurrection collective nit bu nek war na pare pour dé pour dundal njabot. nit bu nek war na pare pour dé pour don sondel bu ngay tal pour leerlu nit bu nek warona taxawé sondel bu ngay tal sa sa bop sondel pour leeral ñenen ay génération et des générations Nasaran bi dañu am formation bobu mooy ñom ñom ñepp paré pour dé. tubaab boo gis tubaab boo gis pare na pour dee pour réewam américain dafa pare pour dee pour réewam mais sénégalais bi xamul tax parce que tout simplement da ngay xool da ngay dugg ci kër Sénégal paa bi am ay njaboot ñu jël su ceebu keccax tegal ko njaboot gi paa bi liggéey wàcc ñu tegal ko ginaar sans vergogne mu koy lekk ci kanamu ay doomam xale yi di mëq ceebu keccax bi moom muy dagg ay ay ay ginaar di ko lekk ci kanamu doomam yi pare jabar ji ñew daggal ko ay mango mu ci muy lek ci kanamu doomi lolou tubab du ko musa def tubab lu mu day rayante lu mu am yep jox ko doomi mom du lek pour ngeen xam lolou tubab fu ko mbiri tollu doomu tubab yi lu dañu dañu rew parce que lu sen baye am du musa lek lu gën lu doomam di lek tubab bo gis li doomam di lek ci lu bax parce que mo soxla croissance doomam mo soxla croissance lu tubab am jox dox ko doom tok bu amone ginar am ceebu keccax tuba bi lek ceebu keccax jël ginar gi jox ay domam lu le domam soxla ñu duggal len auto yobul len jox len ko mais ngay dugg Sénégal gis borom kilifa gi ku ki ku jur doom di lek ginar doomam yi di mëq ceebu keccax wala ñi lek sombi donc c'est dafa am ben problème bo xamni il faut une formation approfondie ci suñu njaboot pour ñu mëna comprendre le don de soi le don de soi pour la patrie le don de soi waxuñu le don de soi pour toi le don de soi pour la patrie Mon suicide individuel pour une résurrection collective ñun ñëpp ku ci nekk deyal pour ñun ñëpp ñu jogandoo ku ci nekk deyal pour ñëpp ñu jogandoo xam nga tey jii yowmal xiyaam du am tànk ñëpp deewuñu mais bu ñëpp deewee yowmal xiyaam day am loolu mooy suicide individuel pour la résurrection collective bu ñëpp dee dee ci sen bopp boobu kenn doonul existé ti ñëpp la yàlla di yëkkati ndoo sommes parce que nous ñëpp faire jógandoo nous suicide individuel pour une résurrection collective nous pouvons pour ñu defar Nous jaay ci seen Nous joxe seen pour joxe seen qui pour ñun mais qui du dee qui nous di qui nous du qui nous société c'est très matérialisé super matérialisé on nous dafa dafa am lu muy représenté ñu nekk Babylone duñ ma weddi ñu nekk bitim réew duñ ma weddi tubaab bu la ëpp alal moo la gën a forox dàll tubaab du fóot dàll nasaraan du fóot dàll day sol dàll ba mu taj wala mu sol dàll ba kii mu jël ko sànni wutiwaat beneen sol mais taluñu ko dara xol tubaab du la gisal ngay dawal oto mukk ba mu taxaw naan lu oh mais oto bii rafet na oh mais nangam nangam ah lii rafet na oh nangam na non tubaab bi du ko def xam nga tax parce que ñoom dañ leen formé ci ay matérialisme les besoins mondains Sénégal lépp lépp dafa am dara portable boo ko yoree boo ko yoree.

doomu aadama amul lu gën a valeureux nit moo tax bokk na ci loo xam ni dama ko mus naa ko wax benn rappeur ne ko c'est inadmissible benn rappeur dama ko déggoon ci benn rappeur te waxoon naa ko te wax jooju dafa marqué rappeur yëpp ba léegi ñu ngi ma koy rappelé démb amna ko mako rap rappelé bërki dem amna ko mako rap dafa am benn rappeur bu taxone di xass ben morom rappeuram nang ko da nga torox yo tekki woo dara amo dara da nga torox manako inna lillahi wa inna ilayhi rajiun buñ démé ba rappeur bi nga xamni mom moom dafa solowoo di représenter la basse classe pauvre ñi ñak ñi mu jog taxaw and ak ñom di xex budé dee rappeur moo dem ba mujjé dugg taanu ci kamb bay légui di xasaate ci ñak wala ci torox tangé moy rabbi fofu dañ ko wara dak ci rap manam def na luñ nane bokkaale yalla comme bok julit bo am naan bokkaale yàlla loolu yalla dul nangou mais rap bo ci duggé ba bay xass sa morom rappeur nan ko yow da nga ñak yow amo yow taxawel né moy koku xamutul lan lay rap koku moy rir na xamutul luy besoin rap xamutul lan moy principe la rap ak ay préceptam ay idéologie am kon demal jangewat ndax rap ba rappeur bu demee bay xas kenn ci askan ndax ñàkkam wala ñàkk am amam c'est parce que yow xamatoo fu nga bàyyeekoo ko xamul fu nga jëm dellul fu nga jógee demal jàngiwaat te loolu ba suñ jonn yàlla tey doomu aadama yi ñu ngi taxaw di ko fàttali mu la yaa ngi fàttaliku sa wax jooju noonu ma ne ko buñ jógee foofu tam nañ tamaat feneen koo yaakaar Baye Niass Baye Niass musul xas doomu aadama ci ñàkk Baye Niass teewaayam fii ci kaw suuf moo doon dimbale ñi ñàkk moo doon taxawu ñi ñàkk moo doon nekk ak ñi ñàkk mais liggéeyu Baay Ñas newul di rejeter ñi ñàkk donc spirituellement réer nga temporellement temporairement réer nga gëlëm nga gindeekul parce que ñun yeyowuñu ñun yeyowuñu di xas ñi ñàkk ñun dañoo war a ànd ak ñi ñàkk ñu ñak dañ jaral lu lune lu ne dañ jaral té Sénégal doomu aadama lolu loolu tax ñu pouvoir parce que sénégalais ont am pouvoir le pouvoir le un am-am ci pouvoir moom moy am-am moy est rek toroxal pour mu jox c'est tout un problème.

ah bon ma ne ko non yàlla mayu leen ko de tali bi yàlla mayewu leen ko ñoom ñoo ko defar immeuble yi ngay gis nii mu tiim la nii gratte yi yàlla mayu leen ko de ñoom ñoo ko tabax dëkk bi ni mu setee nii yàlla may raxasu ko de yàlla fomp ko yàlla balewu ko ñoom ñoo ko bale ñoo ko fomp ñoo ko def waa ji ne tekk oui yàlla mayu leen dara lépp seen liggéey seen am fulla am fayda ak bëgg seen réew moo leen ko may waaye boo toogee fa nga toog naan Sénégal googu nga toog mu tox tottu nga naan yàlla nañu yàlla defal comme ñii ñii yàlla defalu leen ko seen ñaq moo leen ko defal seen bëgg seen réew moo leen ko defal seen maanaam sopp seen réew moo leen ko defal seen set moo leen ko defal seen civisme moo leen ko defal seen bëgg développement moo leen ko defal seen jàng patriotisme moo leen ko defal waaye yàlla deful leen dara ndax tali bi yàlla defaru ko miir yi yàlla dabaxu ko suuf si yàlla wàcceelu leen ko ci asamaan si rek ñu tabax su jël tabax ay immeuble donc lii magie amu fi lii liggéey la ak bëgg sa réew mu ne wéy moo laa nga dëgg dëgg kay ko alors bàyyi leen ñaan yi bàyyi leen yàlla nañu yàlla may yàlla nañu yàlla may immeuble amul fenn yàlla nañu yàlla yëpp dañ koy defar lépp dañ koy defar yàlla ndeem yàlla moo nekk ci lépp waaye yàlla lépp yàlla la waaye lépp du waaye yàlla yàlla mooy lépp mais lépp du yàlla yàlla mooy lépp Mais du donc loo bëgg da koy defar da koy tabax déjà patriotisme est Sénégal Le sa réew Sénégal di dire da tout simplement parce que di gis ay doomu aadama yuy jaayante ngir réew seen réew ko di ko tàmmuñu di ko gis ay doomu aadama yoo xam ne dañuy jóg di jaayante ngir seen réew te mu jaral leen lu ne moo tax boo jógee rek coow li dina bëri riir gi dina bëri ay doomu aadama dina ñëw comme gars yi xam ne xàmmee nañ dof buñ ma gisee nii dañ naan kii moom dof la kii moom ab dof la donc dañuy am dañuy ragala ñëw jege ma pour na ma pour jëm ma essayer corrompre dañuy dem ci ñu ma jege am nañu wax ak ñoom je te dis y' pas une journée où je reçois pas des des une une une cent une cinquantaine de personnes yi ñëw di ma jéem a giifal cinquantaine yu may jéem a giifal yenn ay mbokk ay xarit ay àndandoo ay ku ne di nga ma giifal oui boo calmoon tuuti ñu am lu ñu réglé kii non moo la ma sañoon ah ñun de lii dinañ rusloo de ku ne indi say benn discours de morale à deux balles te ñoo xam ne ñoom heure bi dama leen waroon fekk ci xeex bi ànd ak ñoom ci xeex bi ñooy retourné ne dañ may jéem a seddal wala dañ may jéem a sotti galaas wala dañuy jéem a teg mbuusu galaas sama kaw pour ma sedd te li may xeex ñoom ñoo koy dund. te cinquante pour cent cinquante yi may woo yëpp par jour di ma jéem a ne jéem a négocier ak man euh, loolu la ñu woowee corruption passive corruption passive mooy xaaral ñu dem naxaa naxanteeg moom mu calme après ñu dem encaisser dafa corruption active ak corruption passive passive bi mooy ñëw négocier ak man sotti ma galaas wala teg ma mbuusi galaas ma sedd ñu dem dóor fee seen corruption active ñu jox leen maa ni ñu dugal seen biir poche

soccet yi ñoom ñooy dund criquet pèlerin yi yàq seen mbay ñoom ñooy dund torox tàng bi ñoom ñooy dund biir wasin ci couloir yi ñoom ñooy dund feebar ñu teg leen ci saret yi ba ñu faatu ñoom ñooy dund ñu gaañ leen ñu war a dem faju seen deret di tuuru ba ñu faatu ñoom ñooy dundu fu ñu toll naan mayee leen groupe de sanguin tel tel mayee leen ko ngi li laahi war a suuli ñoom ñooy yow ci biti dajeeg cinquante ñaankat sarax ngir yàlla sarax ngir yàlla sarax ngir ñoom ñooy dund torox tànge bu ne ñoom ñooy dund oppression bi ñoom ñooy dund naqar gi ñoom ñooy dund ndox mi bu nangoo kër yi inondation yi ñoom ñooy dund ñàkk gu tar kon ñoom ñoo waroon gën a njëkk ci xeex boobu waaye ñoom ñooy ñëwaat encore di jéem a dox samaan di la jéem a corrompre passivement léegi loolu boo deful nag day dellu ci lu naan syndrome de Stockholm maanaam sa ravisseur jàpp la tëj la fenn ngay nekk ak mom nekk ak mom nekk ak mom ba nopp ko wala nekk ak moom ba bëgg ko ba sauveur yi bu ñuy ñëwee pour sauver la nga ne non bàyyi leen ma fii parce que affaire baa ngi commencé neex dem naa ba nobanteeg sama ravisseur wala dem naa ba bëgg ko dem naa ba fan ko loolu moo tax da ngay dem ba danga naa dangay ko da ngay naan mais est ce que ñii yërëm nañ seen bopp est ce que ñii ñoom xam nañ ni li pour la 90%. parce que man damay tok fi di wax 5G la yor Sénégal amul 5G 4G lañ toll connexion bi man fi ma tok 5G fi ma ni fay sama kër ma courant du fi coupé ma ndox ndox mi ma amul sax ambulance sama buntu dans moins de 5 minutes ñu dugal ma carrément ma mel ni ku réew tëdd njaax ñu yóbbu ma ci hôpital haay ne lan mooy métti man ne nopp bi ñooy métti urgence sama mënuma dégg wala fii day yuux sama nopp bi day nangam ñu teg ma bindal ma yóbbu urgence xool lan la ay ma bu ma guddi bu jotee ñu indil ma ket sama yaay du indi lekk sama baay du indil ma lekk ñoom ñoo may indil lekk yaawur bi ci ci kii bi mburu bi fromage bi beurre bi lekk bi lépp ñu indil ma ko sama papa joxe ko sama yaay joxe ko jarul sax ñi may seet si hôpital nu may tëddee ne sama nopp bi day metti heure reer ñu indil ma lépp lépp tout ba pare toppatoo ma chaque deux minutes benn kenn ñëw ne amul amul yaa ngi ne yaa ngi kii ah sa nopp bi métteetul fan mooy kii nangam nga gis keneen ku jóge fee dóoral la benn perfusion bokk la ku xooloon bokku la ku bindal nga xam ni vraiment nga am nga am sax problème mu choix. nga am sax problème mu choix nga nan mais vrai doo da ngay da nga nan oh mais nuñ lay réwalé nuñ lay topoto parce que kou la ne ku la wax lu la nakari sax nga né damay porter plainte docteur bi sax bu leur bu waxé waxu réwandé sax nga porter ko plainte wax bu réw rek bo la wax bo sentirul Sénégal chaque jour nga ñëw di wax ak docteur mu toroxal la eh, da taxawé né ak fouché peut-être yi nang mu la la ah lén lu bay def hein ah. né ay ay ñoo xam dañoo ñëw naqar dañoo ñëw metti dañoo ñëw feebar ay docteur di leen toroxal di leen dàq di leen taxawel ne am na ku la fi jiitu non pusal fii taxi ci saa si kenn woo ko waa allo waaw benn tata bu fa ñëw nee na mi foofu noonu ci hôpital léegi lay doog a yegg si noonu ah lu mu sol ah mi ngi noonu xaaral mu woo waa xaaral da nga coupé ah yow la yow la la Pape Ndiaye yónnee waaw waa xaaral kii bu am ko génnee nga dugg mi ngi saaga ñeneen ñi pauvre yi pauvre baadoo lay di saaga les femmes enceintes ak lu etc daj et cetera et cetera ñi feebar ci saase ñi keneen woo mu jël ko dugal ko xam nga kon docteur la boo xam wala médecin la boo xam ni amul lu patriotisme symbole patriotisme nawul ci moom flamme patriotisme nawul ci moom te noonu la lépp di dawee xale bu jàng ba ar am ay diplôme di wut stage bu leen yi di wax li ñuy dacc ci loxo goor yi stage tu te dis c'est incroyable incroyable gel yi dañuy ñafé sonu jang ba dé yor sen ñom ñoy ñom ñoy euh numu ko mëna mom moy ñi nga di quoi Sénégal Sénégal jigen fi jigen du di Sénégal jigéen moo gën moo tax moo tax Sénégal balaa maa dee discours boobu la ñuy wax quoi c'est que jigéen da ko war a <laughs> jigéen da nga ko war a suturaal xamul tax parce que dañuy toroxal jigéen Sénégal fan la yàlla wax jigéen da nga ko war a suturaal góor waroo ko suturaal ay débat d'idées yu amul benn sens la fan la yàlla bind ci alxuraan ne jigéen dañ koy suturaal waaye góor kenn du ko suturaal suturaal doomu aadama la war a suturaal doomu adama mom mom lolou mais senegal jigen lañuy wax parce que jigen lañuy gëna toroxal jigen lañuy gëna gën jigen lu muy sibir kenn musu ko sibir ci kaw souf jigen senegal mais fi jigen moy bour bo amé jabar tay tay tay bugul nga fanan fi do fi fanan tay tay tay wallahi la azim ya ya top ci ginnaawam di joy te pourtant kër gi ya koy fay bu la nexé ah, fi nga jël sa jabar légui jëlé ko senegal ñew fi man ñaata goor lañ dàq ci mbéddi ndax sen jabar yi te indi fi sen jabar di rewontu seen jabar wo police police ñëw wacc ñaari auto duñ sax laaj ko goor gi dañuy ñëw laalu la mba mbeju la mba kiwu la bo ne daf ma mbej ñu mëna a bum bum ñaari mëna duggal ci auto bi suk duggal yob daf ma mbej rek duñ sax xol fan la ko mbejé nu ko dañ lay duggal ci auto bi yob direct tribunal nga jëm ak ku jigen ka ba paré de wala mu ne la da ngay genn tay do fi fanan, te doo fi fanan, wallahi lazim te jabar ji yaa ko indi de di fay appartement tout ñu ne la doo fi fanaan tey noonu lañ lay génnee nga dem wëri say copain ku la fanaan ñaata ñaata ñaata ngay topp fii benn sénégalais fëgg la kung kung kung nga ubbi deux heures du matin lu xew <laughs> waaw soxna si de moo ma génne gàlle quoi oui te dafa bëgg a woo police quoi ah oui ñu xajal la nga fanaan ñaata ñaata sénégalais mais Sénégal nag moom góor mooy jóg rek toog ah da nga wax loo naqari ah yow maafe bi nga ma toggal lii saful saful xorom xuloo ci yow yow maafe bi saful xorom non non mais c'est la merde mais euh, non ko ci bi di fase naa la <laughs> nga gis jigéen bi di defar bagage pour génn deux heures du matin xool ci ay ci ay ceeb bi saful xorom ay ceeb bi dafa weseñ wala ceeb bi nangam fase la ci ba pare deux heures du matin en danger ñu daq la nga génn nga war a génn ci mbedd yi yoonam new ci dañ lay agressé du la agressé am nga xaalis amoo xa yoonam génne sama kër génne sama kër génne <laughs> ngay dajale say bagage di takk di génne nga xam ne lii du réew loolu moo tax gaa yi di dox ci maanu gaa yi nag jigéen nañ koy suturaal jigéen nañ koy nangam c'est parce que gars yi dañoo ñun dañoo am ñun problème mu société lañ am en fait problème mu lañ am te il faut qu'on soit clair noonu la gel yi di demee di déposer seeni CV ay góor di leen tëddee ñaata gel lañ fi tëddee ci ay CV wallahi azim ñaata gel la gars yi fii tëddee ci ay CV ay déposer CV ñaata senegal ñaata joomu aadama ñaata jigéen la ay góor fooye violé leen ci affaire CV loolu viol la loolu viol la xam lan mooy viol du forcé nit ki ñëw jox la CV am nga jël ko nga ja nga nga chantage ko ba tëddee ko loolu viol la tudd promotion canapé mais viol loolu mooy viol mi ngi def lu mu bëggut mi ngi def lu ko neexut ñaata doomu jigéen ñaata doomu aadama Sénégal jigéen ñooy subir viol <laughs> te sénégalais wooyewuñ loolu viol ñoom dañoo jàpp ni viol mooy comme forcé même sa gel bu ñëwoon tey sa gel nga bëgg koo tëddee bëggul nga tëddee ko loolu viol la viol sa gel laa la wax de sa gel même sa jabar nga ko bëggul nga ko bëggul nga def lolu viol la tu as violé da violé mais Sénégal tu dañ japp viol moy ko xam du sa jabar ko ne parce que tant qu'il y a pas de consentement un viol la da violé intimidé violer, violé lu mu bëggul choix nga nga forcé ko lolu viol sa jabar sax ñep sa gel sa jaw lolu bu amul consentement viol la donc il faut que sénégalais xam ni dañuy subir injustice té xam nga ban injustice mo gëna graw injustice bi nga xam ni mooy lu ñu injustice sociale ay inégalité sociale loolu moy injustice sociale ak graw garaaw bu am fippu injustice sociale moko waral té lolu Sénégal loolu yag, yàgg dafi bari képp ku yalla may ya nga jéem a toroxal kenen ki képp ku am ya nga jéem a ya yaa dafa mel ne ñoom ñëpp ay revanchard lañ sénégalais de nature xam nga dañuy wax naan Macky Sall dañuy wax naan ñom parce que fu jaar la dañuy wax naan ay ñoom euh, Bassirou Gueye ndax fu jaar la dañuy wax naan Antoine Niak Diop mais lool c'est sénégalais le sénégalais est de nature revanchard bu ñaké lu mu daj lepp bu amé day jëma fay lool ci société bi bu dé ay jigen da leen di jéem du day teddé rek tëddee bum vëm rajaxe pour sentir ni mom tay amna du ko jël jaamoo ci yàlla di déedéet day wane ni am na tey ngay gis mu jàpp jigéen yi tëddee tëddee ku ko neex tëddee di leen choisir di leen euh, di leen pamti pamtee te en boobu muy am en boobu mu toogoon amul dara benn jigéen faalewu ko mu am en toog kum ne ee eh, gel nga ne ko waaye du pusal fële waaw yow da nga yor gat yow noqul ca xaj loolu bu demee ba am dana naa ah, xaaral ma dem fayu ci gel yi parce que yàgg naa leen doxan ñu may toroxal yàgg naa leen doxan ñu may wàññi yàgg naa leen doxaan ñu ne ma yoroo tus yoroo gat noq ca xaj mu commencé am nag wan ne ni ah tey am na léegi nag loolu day dem di ko fayu ci gel yi di leen foowee di leen pamti pamte di leen yóbbu fu ne di leen loolu moo tax la famille fay Sall mel mel noonu parce que ay esprit revanchard lañ yor ay rancunier lañ yu denc ay men mer yu denc ay mer yu denc ay naqar pour fayu ko ci askan wi parce que am na lu ñu bëggoon bëgg gis nañ fi jigéen bëggu ko ñu ne leen amoo gis nañ fi jigéen ñu ne leen da ngeen ñàkk gis nañ fi jigéen nopp ko ñu ne puusal fële loolu dafay indi lu ñu naan des inégalités sociales day indi lu ñu naan injustice sociale loolu day fipploo ay doomu aadama loolu moo tax tey doomu aadama yi di fipp si seen biir di rayante seen biir ku jekk sa morom rendi ku jekk sa moroom gaañ ku jekk sa morom éliminer seen intérêt rek lañu xam ci seen intérêt rek lañuy dox loolu problème la moo tax ay gel yu lay wax am na benn gel laa dernière fois dafa gaañ ak man mu ñu joxoon ko benn rendez-vous benn waay mu waroon yóbbu CVM mais comme man day waxtaan ak man lu bëri mun ne ma suba de dama yóbbu sama CV nangam nga an bu toog ba guddi waa ji envoyé ko message na ko non suba damay occupé quoi léegi bàyyil ba après demain le soir ay côté vingt et une nga indi CV bi jox ko benn appartement benn kii appartement quoi gel bi ñëwaat ci man ne ma mola gel bi de waa de nee na ma bàyyi ba ginnaaw suba mu ñëw ay vingt et une heure appartement ma ne ko appartement CV CV yow nga jël ko di dem appartement ah non ndeysaan ak nu mu bëggee liggéey non du mu bëgg liggéey rek dimbale sama yaay ma ne ko kenn du yóbbu CV appartement loolu amul ci moom di bi CV kenn du ko yenu du ko dugal ci ay appartement di fekk nit ci appartement di ko jox CV c'est inadmissible bul dem bul fa jege bul laal CV da koy yóbbu bureau fu muy liggéeyee CV du appartement CV du ci kaw lal CV bureau la CV mooy fa ngay liggéey fu muy liggéey ngay yóbbu CV bi boo fa demee di nga gis leneen te bu mu demee leneen la gis leneen kooku da ko doon jéem a tànte wax ak waxu reewande ba mu demee waa ji di ko jéem a kii mu bañ fekk wow heureusement préparé naa ko mentalement mu bañ waa ji wëy waaw li ngay bañ say morom nangu nañ ko fi <laughs> li ngay bañ say morom nangu nañ ko fii yow munoo joxe say exigence sans man tam ma joxe samay exigence parce que man moo moo man loolu la ko waa wax mu ne ko hey man ay exigence indiwuma fi ay yow lu may proposé man tam am naa lu ma lay proposé indiwuma fi yaa ma wax ma ñëw jox la sama CV boo nangoo CV baag boo munul ma waa ji na ko waaw kon damal waaw kon damal muy dem digg bi ne noo toogal toogal toogal yow c'est que nga mu nangam mu ne waa ji nangul jël CV bi di ko forcé

appauvrir doomu aadama danga koy yóbbu ci état bu mala donc boo ko joxee lu mu lekk walla lu mu naan rek dootul gisati dara dootul gisati dara lu dul foowee la te waa ji lu mu dafa leeral def na ko say morom lo nangu nañ ko fi kon donc waa ji yaa gën a euh, violer ay jigéen yi ñëw foofu ci ay CV boo duggee ci bureau yi sa waaye bëri na jigéen yoo xam ne euh, euh, euh, promotion canapé moo leen fa toogloo de waa ji def leen cagaam saa yu sonnee jël ci kenn ñoom ñëpp promotion canapé da ngay dugg ci benn bureau wala ci benn banque wala ci benn nga xool am nañ diplôme bi de jàng nañ am nañ diplôme bi loolu moom amoon nañ droit toog foofu liggéey te kenn du leen foowee dañuy caaxaan ji góor yi dañuy caaxaan bay caaxaanee jabaru jàmbur wallahi la azim promotion canapé bay tëddee jabaru jàmbur bañuñu ci dara dañuy tëddee jabaru jàmbur dañuy tëddee ay gelu jàmbur dañuy tëddee ay jigéen léegi ñoom dañuy ravager rek jël la teglu ci bureau bi heure bu ko neexee mu yóbbu la tëddee la parce que looloo la fa toogloo bu la fa kay balaa mu laa bàyyi sa waay seytaan dina tàng en fait problème mu société lañ am te nee naa leen balaa ngaa defar kër da ngay defar nit yi balaa ngaa defar kër dangay defar nit yi dafa am benn kër ay nit dëkkoon fa nit yi nekk fa dëkk fa yàq ko puub saw fee daane miir yi xoos peinture bi taj damm damm damm bunt yi damm loke yi ok benn waay bëgg a ñëw falu ñëw fekk waa kër gi yëpp toog jaxle boo ma falee ci biir kër gi dinaa ko defar ba mu rafet rek waa kër gitu woi woi dina dinaa pentiri woi woi dina waay dinaa woi dina yi fenetri dinaa defaraat fenêtre yi ay lal yu yanji ngeen di nalaw ba jaaxaan woi woi waaw commencé saga borom kër ga waaye génnal ci biti génnal ci biti ñun kii lañ soxla ñun kii lañ soxla ñun kii lañ soxla ñun kii lañ soxla ba kooku daw ko ba waa daw kooku ñëw commencé defar defar day pare benn miir peinture rek keneen xoos feneen xoos fii mu pare balaa moo pare benn waay yor benn benn garab bu ko sëriñ bi jox mu dem ba ci digg kër ga gas ko euh, dugal ci benn euh, euh, téere nga ne waaye loolu mu ne <laughs> sama téere bi sëñ bi nee na ma suul téere <laughs> la tax ah comme ça kër gi du gaaw a yàqu téere boobu mu ma jox noonu waaw day yokk wërsëg day tax kër gi boo ko tabaxee ba pare muy am xaalis bu bëri day ñëw sëñ bi nee na ma gas fii balaa ngaa pare waa ji gasal la foofu dugal la fa téere keneen ki xoos miir bi keneen ki dóor miir bi tël tël tël ngeen loo fi def mu ne benn téere laa fi bëgg a dugal benn téere <laughs> loo xam ne luñ ma jéemal du mën a sotti <laughs> téere bi laa dugal fii que keneen di dajji feneen keneen ki waaye lii du ma ko jël def ko sama fii lii du ma ko nangam donc dañuy dem ba nga xam ni doomu aadama munul defar loolu kon problème bi du doomu aadama bi balaa nga defar kër gi nga defar nit yi boo defaroon nit yi nag bañ pare boobaa foo leen yóbbu dañuy mën a adapté wu foo leen yóbbu duñ ko yàq

léegi tant que ñoom xamuñu ni feebar bi ñoom la ñu jàpp ni feebar bi ñeneen la ñoom du ñu porter responsabilité boobu xam ni ñoom ñooy problème bi léegi comme ñun ñëpp dañoo feebar képp kuy defar gouvernement ci ñu feebar ñi ngay jël boo jëlee ñi feebar ñi ñu toog mais loolu kan mooy faju kan mooy faju bu dee société ba yëpp amul docteur ñëpp benn waaye buy muñ naan président bu bëgg a doon président mooy docteur bi mais ñeneen ñu ñoo ne ñëpp dañoo feebar mu pare ñu jox ko nguur mu ñëw toog jëlaale ci ñi feebar ne leen ñuy jiite waale <laughs> mais feebar boobu <laughs> day feeñ day feeñ day feeñ loolu moo tax tey sax maa ngi gis bon bëgguma dugg si seen parti politique yooyu parce que lu mu demee la mais am nañ droit wax sañu idée ngay gis benn Euh, su lay su lay xaw ma lan nu mu tuddati tam nekk ab euh, euh, kii Pastef mais mu génn arrogant wax wax yi réew di yéen a may wax nu may kii sama deux mandats yi sama nangam mais ñoom ñoo fi ñoom waa Pastef ñoo fi gëmloo woon loolu sénégalais yi ñoo fi taxawoon ne cumul de fonction waru fi am te kooku tudd naa turam yàgg na ci live yële ñoom ñoo ñu ko gëmloo sa doit pas être des un peu de respect pour le peuple sénégalais taxaw fi vie Diop Lumu def waxon nako temps passé fi ñew kenn len kenn len lem fi devant tous les sénégalais qui da di cumul de fonction Ousmane Sonko taxaw ne man buma ma député damay mairie ba sañu kanam ñun ne def de fonction mom moko wax ne def cumul de fonction tay ngeen taxaw di saga sénégalais di ñu bëgg gëm lo ni birum su lay taxaw devant tous les sénégalais manque de respect na doo leen ma wax lu may def kon yow ya fal sa bop yow maire yow birum su lay ya fal sa bop maire mm-hmm. ñun duñ la wax lu ñu def te ñun ñu lay fal ñu jël sañu carte dem fal la maire jëlat suñu carte dox ci naaj bu tang bi ci xuus ci ndox mi dem far la député nga ne ñun duñ la wax kan mo la wara wax ki la def li nga doon loolu noonu poste yooyu nga yor noonu sénégalais yi ñoo jóg kuus ci ndox mi ci naaj bu tàng bi yor seen carte sànnil la ba nga doon li nga doon nga taxaw di leen saaga ne duñ la duñ la wax. waaye yow kon léegi ñun bu ñu falee doomu aadama te ñun amuñu droit ci wax ko moom <laughs> kon am na problème parce que yow mënoo fal doomu aadama ba pare mun a la yow tëgal sa gémmiñ amoo looy wax. ba xas ñu ne ci réseaux sociaux na amu leen sax carte mais ñu nekk ci réseaux sociaux di ay sénégalais wala ñu nekk ci réseaux sociaux lañ. Nous sommes ci réseaux des sénégalais qui ont des cartes qui ont des cartes Mais nous sommes réseaux sociaux nous sommes am sénégalais quoi ay ñu ci cartes après les machine lañ quoi duñ cartes, ñu cartes, Nous sommes des dañuy cartes, dañuy cartes, c'est un manque de respect notoire donc vous vous avez cartes, leen di wax <laughs> après il donne même pas le bon exemple cumul de fonction nga yor ñaar gaay dagg diplôme jang ba na ar des xel te yow wax cumul de fonction do len ko def ngeen di def de fonction xam nga len de fonction lolu amul France amul Amérique amul ci dëkk amul Canada loolu manque de respect la pour ay les intellectuels pour ñi jang pour ñi yew pour ñu xam ñi gënu ñu ndey am na junni doomu sénégalais yo xamni ku togon ci place Birame soulay la la wax lu muy def Birame soulay duko def en tant que député amna benn sénégalais bu nek fofu jang ba ne ar ëpp birum soulay diplôme gën ko yew gën ko don patriote gën ko bëgg Sénégal ko xamni tay bu ko joxone place député bobu mu def lu mënul def amna fa am on parle pas de démission on parle de wa daf ko war def bu déjà il devait démissionner depuis instant yi mi ngi toog benn taat toog ci ñaari place c'est pas normal Ben place ben taat bu tok ci ñaari place di dem ci mairie ba di dem ci di dem assemblée nationale Tok ci mairie ba lool xex nañ ko ba sonn kooku absence la Amadou Ba Pastef mën nako? et puis nga bëgg a ci mairie ba bëgg dem assemblée nationale di siéger bëgg bëgg marathon budgétaire bi ngay bëgg di assister bëgg di dem mairie ba nga ñëw mairie ana maire ba maire ba quasi absent ñun loolu dañ ko xeex depuis PS dara changé gu fi dara ana maire ba mi ngi Dakar ana maire ba mi ngi nek ba Thiès ana maire ba mi ngi Dakar ana maire ba mi ngi assemblée ana maire ba mi ngi do mëno gis sa maire maire quasi absent ñu teg fa benn benn mike muy signé muy signé signé di signé wala mu dajale dossier yi tardel doomu aadama yi dajale dossier yëpp ñuy xaar maire bi pour mu signé mais loolu depuis PS la woon ba suñu jonn yàlla tey changé wul tu te demande léegi ñun la xeex bi fan la yegg signature par ordinance maire ba di taxawaalu nekk ndakaaru di lijjanti ba pare boole ci di liggéey maire bi day liggéey ñett la am ñetti poste benn bi profession moom la c'est normal mi ngi impôt et il est toujours à Dakar deux il de, de, di nekk impôt Il domaine de liggéey di dem assemblée nationale daw dama Thiès mais c'est la <laughs> mais c'est que il faut nous avancer quoi on peut pas attraper deux livres il faut nous avancer il faut il faut nous joxe le bon exemple il faut que ñi nga que nous dañoo woote rupture wane lan mooy rupture est-ce que comprendre ngeen est lan mooy rupture rupture c'est intéressant c'est important les gens doivent donner un ben, ben style rupture parce que nous ne décider pas ñom ñoko wax aux Nous wax ñun dans sur secteur ñom ñoo rédiger seen ñom ñom seen seen plan ñom wa ñom Ousmane Zongo. ne kenn amul cumul de fonction donc il devait démissionner depuis c'est un manque de respect des Sénégalais Il n'y mënu ko amul avocat du diable qui peut défendre Soleil. il y a pas impôt de loolu pas la bu ko démissionner mais ils ont écrit texte parce que ne kenn du fi def cumul de fonction ñom ñoko bind ñoko wax ñun ñu Respectez les Sénégalais. Respectez l'intelligence des Sénégalais. Arrêtez d'insulter les Sénégalais, leur intelligence. Arrêtez d'insulter l'intelligence des Sénégalais. Vous n'êtes pas plus loyal que les Sénégalais. Ne pensez pas aucunement que vous ne aux Sénégalais. Il faut respecter les Sénégalais quand même. C'est ce qui ont voté pour vous. Assumez les lignes de Assimilenko, ko fi wax wala ngeen lu ngeen di wax ko ñu question de principe li ma wax dama koy respecter mané li li def lañ ma député man eh, pour une question de principe d'idéologie dañoo waxoon ni bii si suñu texte yi Pastef kenn warul cumuler fonction comme cumuler naa fonction nag maa ngi bàyyi bii mais bu bu forcé day mel ni nguur nguur xam nga nguur dafa neex de <laughs> billaay nguur dafa neex gars yi dañu bëgg nguur de nature quoi toog ci benn nguur rek ñoom nguur da a neex daal jiite jiite nekk ci kaw jiite jiite quoi jiite bakkan nguur dafa sax ci bakkan pour te ko ni bu concentré wu ci na sax débat conférence de presse gars texte bi ok man je choisis député député pour ëpp doole mairie ok amna na jox ko mairie bi mu dem gérer concentré concentré ci mairie Que mi ngi def convenablement maire député mu soxla mais c'est tout ñoom ñoko wax ken forcé wu len ko mais problème mu africain la dafa bëgg nguur dafa bëgg nguur foqale foqale bu ko tok fépp bu ko yor lepp bëgg mom lepp un problème de de personnalité quoi donc il faut que ñu xam lolu ñu ñu ñu bàyyi xel lolu parce que lu am solo la ci suñu dund bu ñu changer affaire yi. man bu ma koy rab yàgg na PS la woon député maire dañ ci maar fii la sàcc yi jaar ministre soqog jóor député maire dañ ci maar njiitu parti yi ku ci wóor CS Sénat lu ñuy xaar amuñu fi njëriñ bàyyi góor xiif mar wi doy na waar war sañ kaw dig ñu dóor loi yi ñu tengal ambulant yi ñu tongal waxoon naa ko yàgg na lii PS la woon billaay raf naa ko bu yàgg ba léegi mi ngi am ba léegi mi ngi am ku ma ne woon après 15 ans même chose day am boo koy raf sax booy laa 15 ans mingi am ba léegi ci parti yi mel ni Pastef tu te dis que mais <laughs> à quand le changement à quand le changement billaay bu ma koy bu may rab loolu aw ma si dem ba si xim sax bay bijaaw sax xoolal même chose ba léegi boo boobu ma indee texte boobu mu mel ni tey la te lii boo ko booy laa woon fii la sàcc yi jaar ministre Sokog Dior député maire dañ ci maar kon Birame Souleye dañoo maar ci li ngay def maar on en a maar yaanaa maar Birame Souleye ci li ngay def député maire dañ ci maar ba léegi dañ ci maar ñenn ñi mënu luñ leen dara mais yow yaa waxoon yéen a waxoon loolu gor ca wax ja respecter sa cadeau démissionnel ci lenn li nga jox kenen gëno fi kenn nday gëno fi kenn bay gëno fi yow kenn la nga mën ben ñun mën nañ ko fukk bo bëggee sé réew ben bëgg nañ ko fukk ak junni jaru sax conférence de presse libéré ben poste nga jox ko kenen mu doxal ñu réew mu jëm kanam yàpp ngeen ñu torop ak arrogance ak insolence taxaw di wa mënul xolal man kenn duma wax lu may def mais yow yow sa alalu bay la ñu jox la alalu askan wi jox la ay place bu xam ne askan wee la ko jox nga ne yow <laughs> askan wi mu mënuñu ci yow mais reewande googu nan nga ko mënee lii lépp ci bëggu nguur askan wi la fal na la teggil benn bi nga naan ay waaw man kenn du ma wax lu may def <laughs> non ku ku fàtte lu la fal folleeku ku sant ki la may dolleeku déggoo de ku sant ki la may dolleeku waaye kuy fàtte li la fal folleeku kon Birame Souleye fàtte ni dafa waroon sant sénégalais yi nga xam ñoo ko jox loolu ku sant ki la may dolleeku waaye ku fàtte li la fal folleeku kon Birame Souleye daa folleeku amul benn cër ci askan wi waxam ji réew na insolent na réer na waaye waxoon naa leen benn mbir bu philosophique lu tax mu philosophique nag mooy lu ma di wax chaque jour ne len bo len dégloo samay wax motax may rappeler sénégalais nan len artiste la artiste la musicien la musicien la poète la je peux parler en parabole limay wax day am ay premier degré second degré limay wax boo ko ci kaw rire mais bo ma ñëwé ci développement nga nangou parce que loolu suñu borom may na ma ko ku mën a développé wu la ku mën a développé samay idée la ku mun na kuy taxaw ci ay argument la yàlla moo ma ko may depuis bas age lu may wax dafay sori ba duma si tey di ci yàgg di werante mais boo duggee man débat da ngay nangu yàlla moo ma may facilité boobu ma ne leen man gawuma Sonko idéologie Sonko la gëm man gawuma Sonko projet Sonko la gëm mu am ñenn ñi ñew non non ñu gëm Sonko moy projet bi non Sonko n'est pas son projet déedéet dañ né les hommes meurent mais les idéologies demeurent les hommes meurent mais les idéologies demeurent ana Serigne Touba ñu gëmoon Serigne Touba dañoo gisati Serigne Touba anamu mais ba léegi mouridisme mi ngi taxaw parce que c'est l'idéologie l'idéologie mouride bu ay bëgg Serigne Touba da ngay gëm lépp Serigne Touba liggéey lam fi bàyyi mooy l'idéologie Serigne Touba dem na waaye ba tey Touba ngi taxaw mooy liggéeyam bi mu fi bàyyoon ay tam li mu fi bàyyoon mooy lan idéologie mu fi bàyyoon moom la ñuy topp l'idéologie mouride ana Baye Niass les hommes meurent mais les idéologies demeurent Il Niass dem na ba léegi gaa ngay dem mirina bay di dund idéologie Baye di dund idéologie faydu bi di ko dund di dox ak mom loolu moy idéologie kon Ken du gëm nit gaa yi da gëm idéologie parce que nit ki day idéologie reste les hommes meurent mais les idéologies demeurent on peut tuer les révolutionnaires mais on ne peut pas tuer une révolution on peut tuer les hommes mais on ne peut pas tuer les cerveaux moo tax ma ne leen bu leen fan doomu aadama yi nii dafa am idéologie bu ñuy développé boo bëggee nit ki da ngay topp idéologie bi xool idéologie bi nga ci idéologie bi parce que nit ki dina dee mais warul yóbbaale bi idéologie war a jël comporté woo ko di doxeek moom moo tax ma ne leen bu ma leen waxee loolu affaire bi dafa yëngal gaw ma Ousmane Sonko ga oh waaw bu ñu wax loolu oh waaw gars yi tëb tëb tëb tëb fekk pare gu ma man leen déedéet idéologie bi laa gëm parce que Ousmane Sonko dina dem te suba suba mënoon nañ ko fi rey wala posone ko mais Ousmane Sonko dafa war a exister fii parce que idéologie bu mu fi bàyyi kon man gëmu Ousmane Sonko idéologie am laa gëm. les hommes meurent mais les idéologies demeurent loolu moo tax après ku ci nekk yooyu <laughs> moo laa nanga leen bàyyi leen boo leen déggee mën a tëll rek wala kakk rek ngeen na damm na. boo leen déggee ma ne kakk rek bu leen na dàmm na toog leen def ndànk ba ma wàccee. sama kàddu bu ma bu ma ko wàccee ma ko wàccewul bul ko bul bul résumé bayil bama ma mais tant que maa ngi wax <laughs> pareegu ma bul juger bul tepp cëppi bul parce que dama koy développer ba tek ko ci temps sujet verbe bul yuxu bayil bama tek complément bi nga dogo wax kon les hommes meurent mais les idéologies demeurent Ousmane Sonko xam nga lan la chauffeur kessa la xamuñu lan lañ top auto bi lañ top oto benn camion wala benn benn bus Ndiaga Ndiaye ñëpp fees ci Ousmane Sonko di dawal ñëpp nekk ci biir Ousmane Sonko di dawal jëlee ñu Dakar war ñu yóbbu Ziguinchor Ousmane Sonko bu demoon ba soxla nelaw war na mën a ñëw na eh xaaral ma tëdd di nalaw na keneen ñëw dawal mais dafa mel ni derrière Ousmane Sonko y a le désert Sonko waxut tey mënoo déglu keneen ku ñëw. te idéologie boobu ñëpp ñu fa nekk ci parti bi dañ ko war a adapté ci seen bopp ba nga xam ne bu Ousmane Sonko ñëwul wala bu feebaree keneen moo ñëw taxaw wax te ñëpp dañuy gis Ousmane Sonko ci moom wala Ousmane Sonko bu amee gàllankoor keneen.